ak point com ñëw ci naafile yi leen di amal ci weeru koor wi ñu di ko jukkee ci téereb sëriñ son bu Mbàkke radiyallahu taala anhu muy téere bi ni wax xoratul xay ni guddi fukkeel bi ak ñett moom itamit euh, ñaari rakk la ni ci julli rakk bu nekk nañ ci jàng xul wallahu juróom benn yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddi fukkeel ba ak ñett dinañ ci julli ñaari rakk bu nekk nañ ci jàng faatiya ak xul wallahu juróom benn yoon ñu baamtuwaat ko guddi fukkeel ba ak ñett ñetti rakka la ni ñaari rakka la ni ciy julli rakka bu nekk nañ ci jàng faate ak xul huwallaahu ahad juróom benn yoon am na ay ñaan yu topp ci julli yi ñu leen di wax yépp nag waaye ngir bañ a guddal jataay bi moo tax ñu leen di jox naafile yi yaakaar naa jullit bu nekk nag su jullee ba noppi war naa am ay ñaan yu muy def ñu sant leen gërëm leen yàlla yàlla jéggal leen te jéggal qablikum laallakum tattaquuna ayyaaman maadudaat yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa silta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman biqira taahaati wa sadadi